ahousubillah min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare nongi ngi ci fukkeelu jotaay ak ñett ci téere bii di xalimag leer ginnaaw bi nu jiitalee ay leeral nag tey dañuy tàmbali wax xasiiday sëriñ Tuubaa ci lan la jëm mbindum sëriñ bi ci lan la jëm ñu tàmbalee ko nag tudd yàlla xasiday sëriñ bi daa jëm ci tudd yàlla dañuy jiital nag indi lenn ci ay leeral yu soxal tudd yàlla li ci alquran wax ak yenn xaddis yi ci dikk li ci sëriñ bi wax door a dikk nag ci anam gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi di defee lan mooy tudd yàlla ñu ne tudd yàlla mooy teewlu màggam gi ci ab xol boole ca tudd ay baat ci meloom yi wala turam yi ni ki laa ilaha illallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar ak yu ni mel sopp nañu nag nit ku koy def ni mu koy tuddee ci aw làmmiñam mu di ko teewloo noonu ci ab xolam tudd yàlla ay aaya yu bari wàcc nañu ci sunu borom di ci ñaax way gëm ñi ngir ñi di ko baril ba sunu borom di melal waram xel yi ci alxuraan melowo njëkk dafa wax ne ñooy ña nga xam ne dañuy tudd yàlla bu ñu toogee bu ñu taxawee ak bu ñu tëddee alladina yadkuruna allaha qiyaaman wa qu'udan wa ala ba tey sunu borom nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm bu ngeen dajeek yéefar yi ci ab xeex taxaw leen bu leen daw te na ngeen di tudd yàlla di ko ñaan ngir mu defal leen ndam yaa ayuha alladina aamanu ida laqiitum fiatan fasbutu fiatan fasbutu wadkuru llaha kasiran laallakum tuflixuun ba tey it sunu borom nee tudd yàlla day dalalum xel ndax daa wax ne yëgal ne ci tudd yàlla la xel yi dale alaa bi dikrillaahi tatma innul qulub sunu borom nee na yéen ñi gëm yàlla dee leen tudd yàlla lu bari yaa ayyuhal ladina amanu zkurullaha dikran kasiira sunu borom nee na yéen ñi gëm alal ak i doom bu ñu leen fàbbi walis tudd yàlla ñiy def loolu ñooy way perte yaa ayuha alladina amanu laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum xan dikrillah wa man dalika fa ulaika humul xaasirun am na xadis bu yonent bi di wax ne sunu borom nee ne maa ngi ci fu sama jaam bi di njorte maa ngi ànd moom saa su ma tuddee moom sama jaam bi bu ma tuddee ci ab weetaayam danaa ko tudd ci sama weetaay saa bu ma tuddee ci mbooloo dinaa ko tudd ci mbooloo mu gën mi ma tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne amul jenn jëf ju gën a mën a musal doomu aadama ci am mbugal ci tudd yàlla maanaam daal jëf ji gën a mën a musle ci mbugalum yàlla mooy tudd yàlla kon noon ngi am foofu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu